Saourou Sène euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal mais maa lay fay Elisabeth di la nuyu di nuyu ñëpp waa Rewmi FM di nuyu sénégalais yëpp ñu ñuy déglu. Uh-huh. ñuy dalal tey kii di secrétaire général bu syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire bu Sénégal di SAEMS ubbite euh, l'école atu atum ren Sawo Sène muy am ci contexte Covid 19 euh, gis nañu ne ndaw yi fas yéene dem jàngi quatre millions lañ toll euh, tey protocole sanitaire bu ministre bi wala sax bu gouvernement. gouvernement bi teg eta teg ndax dal na seen xel. waaw jërëjëf Elisabeth ci question boobu nga xam ne posé nga ko euh, commencer d'abord par souhaiter à tous les enseignants ak éléve bu Sénégal yëpp une bonne rentrée scolaire mais nag rentrée bi comme ni nga ko waxee dafa nekk rentrée boo xam ne dafa am ci contexte bu particulier muy contexte mbas mi euh, donte gis nañ ni quand même euh, mbas mi mu ngi baissé bu baax a baax ñaan yàlla mu continuer mais li wér te mooy bu ñu waree reprendre enseignement apprentissage dafay laaj mais ñu def tout pour ñu respecter euh, les mesures de distanciation de, de en tout cas tout un protocole sanitaire bi nga xam ne mooy permettre à ce que école bi nekk ci situation de sécurité alors loolu tax na quand même bi ñu demee Saly ak ministre l'éducation nationale eh, mais waxtaan nañ ci protocole sanitaire bi parce que protocole boobu dafa laajoon ñu réviser ko parce que euh, xam nga protocole bi nga xam ne moom la ñu utiliser le vingt cinq juin bi euh, ñu commencé ak classe d'examen examen yi boobu cent cinquante et un mille élèves la ñu amoon kon li gérer loolu gérer wul ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def la rentrée te ñu nekk autour de quatre millions d' élèves et d' enseignants et par conséquent donc li nga xam ne mooy distanciation physique bi nga xam ne dañ amoon benn élève par ba mais li werte mooy tey bu ñu waxee dañuy def ñaari élèves par ba loolu sax du mën a sotti donc am na ay questions yu bëri yoo xam ne vraiment protocole sanitaire bi nga la ñuy pour faut ñu xoolaat leen. ma foog ne école yi ñooy organiser wu de telle sorte que li ni mel ñu mën ko respecter ak li nga xam ne ndaw yi ñëw ci suba ñenn ñi ñëw ci ngoon ak ñu xool daal nan la ñuy organiser pour mën a yembal mbir mi. waaw loolu école yi sax am nañ ci wàll parce que école d' abord damay fàttali euh, balaa ñuy wax ci protocole sanitaire am na yoo xam ne il faut ñu régler ko mooy euh, question wu euh, comment dirais-je école yi nuñ ko war a nettoyer mu set nuñ ko war a désinfecter aussi ba lépp luñ ciy ragal mu bañ cee am loolu nag liggéey la boo xam ne nguuru Sénégal en rapport avec les collectivités locales ñoom ñoo ko war a def alors cet boobu nag bu amee mais école bu nekk avec son conseil gestion par rapport à situation pandémie naka la ñuy gérer seeni élèves limiter les dégâts mm-hmm. alors donc yooyu d'accord naa ni c'est vrai que ñoom ñoo ko war def mais encore il faut que état gunge leen ci loolu il faut collectivité locale yi gunge leen parce que école bi nag école bi la école bi école u quartier bi la école bi école u zone communale la donc à partir de ce moment dafay am solo véritablement ñu xool naka la ñuy sécuriser élèves yi mm-hmm. wax ci euh, état gis nañ ne saa su nekk bu lubité bi jotee day amal ay tournée ay syndicat yu bëri tamit dañuy faral di ko am ndax si e def na li ni mel atum ren pour ñu am un évaluation dispositif waaw xam nga nag xam nga boobu nga wax biñ koy évaluer dañ dem Saly Portudal ak d'abord le haut conseil du dialogue social jóge foofu defaat ko ak ministère de l'éducation foofu nañ évaluer nañ lépp li nga xam ne moo jëm ci rentrée scolaire bi may fàttali rek rek mooy euh, loolu bu buñ ko defee e d'habitude ministre de l'éducation c'est vrai def ñuy invité ñu accompagner ko pour def le terrain mais cette fois-ci ak agenda pour ñu am loolu moo moo permettre woon ma dem ànd ak ministère de l'éducation ñu def tourner boobu mais nag teewul ñun ñu ngi xool li xew au Sénégal parce que nag tey dans la fin de à la la fin de la journée mais suñuy responsable au niveau départemental sous section yi ñoom dinañ ñu faire parvenir seeni rapport ñoom comme ça ñu xool en tout cas fi rëq-rëq am ñu mën ko signaler. Mhm. wax nga ko tout à l'heure évaluer ngeen li nga xam ne moom mooy euh, protocole bi tamit euh, laata mhm. école di ubbi ndax mhm. mën nañoo xaarandi atum ren euh, ñu bañ a dégg lii di ay rëkk-rëkk ci njàng meek njàngale mi li jëm ci grève yi nag mu ngi mu ngi dépendre ci gouvernement au Sénégal parce que nag Elisabeth foofu sax waroon naa fa commencé muy jaajëfal bu baax a baax jàngalekat yi parce que li nga xam ne mooy seen neuf deux mille ñoom def nañ ko def nañ seeni liggéey nu mu gën a rafete mbas mi mu ngi fi teewul bu ñu wootee pour ñu reprendre ñoom jóg nañ ñoom ñëpp dem wane seen patriotisme wane seen engagement wane seen amour pour école sénégalaise ba loolu tax na ñu am ay résultats yoo xam ne ñëpp d'accord nañ ni résultat yi liggéey moo ko waral kon nag loolu bi ko jàngalekat yi defee mais ñu ngi doon xaar ci nguuru Sénégal aussi mu respecter sa part du contrat en quoi faisant mais yi nga xam ne jël na ko ak jàngalekat yi ci période mas mais waroon na man di toog ak jàngalekat yi à travers le monitoring pour que ñu faire avancer question yi nga xam ne mën nañ leen avancer loo yi nga xam ne nag mënul yooyu mën a xaar mais dañ gisul benn jéego boo xam ne état wu Sénégal def na ko ci période boobu pour accompagner en tout cas jàngalekat yi ci li nga xam ne moom la warloo ak ñoom. Mhm, monitoring boobule nee nga day tàmbali bu yàgg ba jëmmi jamono kañ la exactement. waaw ouais, loolu moom joxuñ ñu daat mais ministre de éducation nationale moom wax na clairement à, à partir de sali que monitoring des accords dinañ ko reprendre très rapidement maintenant loolu très rapidement moom moo xam délai bi kañ la mais li werte woon mooy jàngalekat yi ñu ngi toog di déglu nguuru Sénégal ngay jàngalekat doon tamit parent d'élève tey mu am coow ji fi lëmbe muy euh, li nga xam ne mooy privé yi ak yenn parent d'élève yi ñu leen di forcer ñu fay ay weer yi nga xam ne xale jànguñu ko tey ji en tant que déjà syndicat d'enseignants lan mooy sa xalaat ci mbir mi waaw gis nga mbir moomu damay jàpp ni coow li warul bëri warul yàgg parce que nag nguuru Sénégal moo décidé woon tëj école yi kon problème bi waratul nekk entre école yi ak parents d'élèves yi problème bi problème mu nguur bi la ak école privée yi et dama jàpp ni ministre de l'éducation moo war a jël circulaire leeral mbir mi parce que nag gis nga xale yi nga xam ne mais def nañ trois mois yooyu jànguñu ko mais li nga jàngul mënoo ko fay li ci dolleeku mooy état wu Sénégal alal ñun ñëpp jële ko ci trésor public mais jox école privée yi ay subvention école yi nga xam ne am nañ droit am subvention ak école yi nga xam ne amuñu droit am subvention ñoom ñëpp la ñu jox subvention à partir de ce moment véritablement li ñuy xaar mooy euh, nguur bi arbitre ci loolu te mënuñu laaj kenn mu fay quoi que ce soit. yow tey yaa ngi ne boo ngeen sañoon nguur gi arbitré waaye tey gis nañ ne taxawaayu gis nañ taxawaayu nguur gi ci mbir mi euh, ba mbir mi egg injustice nguur daal dafa mel ni daf leen seetaan tey euh, nan nga jàngatee loolu. mooy li ma wax sànq rek gis nga nguuru Sénégal moom mooy décider régler problème boobu. définitivement nan la ko nan la ko nan la koy régler mooy ministre de l'éducation na jër circulaire. wax clairement benn parent d'élève du fay parce que état wu Sénégal jox na école privée yi subvention ba pare mm-hmm. ensuite dañuy naan nit bu lay liggéeyal balaa ñàkkam di fendi mais nga fay ko li nga ko yoral kon nag liggéey moo tax ñuy fay mais trois mois yooyu liggéeyuñ ko kon mënuñu leen ko fay mm-hmm. tey yéen syndicat a ngeen gis nañ ne euh, li ngeen di intervenir ci ay questions yi mel nii maanaam si li jëm ci njàng meek njàngale mi bëri na ndax yéen am ngeen droit euh, tey jii dugg ci bile mbir wala lim doon baax a baax bu gis nga am nañ droit dugg ci parce que lépp luy mbiru lekool def ñu concerné te ma rappeler que bi ñu taseeg ministre l'éducation nationale ci séminaire boobu nga xam ne def nañ ko sali mais wax nañ ko bu clairement que moom na jël responsabilité am jël circulaire te bàyyi ak parents d'élèves yi parce que moom en tant que ministre de l'éducation moom moo ko war a régler. Mhm. tey euh, lan la ñuy xaarandi ci G7 Saourou Sène. waaw G7 moom il faut mu organiser wu waat G7 dama jàpp ni il faut ñu structurer wu mhm. structurer wu mooy mënuñu nekk rek sept organisation syndicale ku nekk di waxal boppam wala di jëf dama jàpp ni dafay am solo bu ñu bëggee nekk G7 dañu am une structure de coordination nga xam ni dañuy responsabiliser nit pendant un temps bien déterminé ba lu xew mu mën a daal di convoquer ñëpp bala mbir di xew sax mënu convoquer ñëpp ñu toog waxtaan anticiper ci événement yi mm. loolu je crois que il faut ñu def ko te c'est tellement important que commission scientifique u G7 def na déjà réunion ci mbir mi et je crois que incessamment dinañ ci avancer bu baax a baax mm. bu ko defee ñu mën a jël clairement en charge les préoccupations des enseignants. Mm-hmm. Saourou Sène ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax. mais jërëjëf Elisabeth maa ngi di jaajëfal di toujours partager seen plateau.